salaamaaleykum mbokki internet El Hadj Malick ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fi leen daan nuyu 100 pour cent lamb ñu ngi nuyu bu baax a baax képp koo xam ne yaa ci lamb Sénégal rawatina région de Thiès ñu ngi lay bu baax di la siyaare tey gars yi bu duddal dana dalal koo xam ne ndaanaan la koo xam ne boo ko tuddee Sénégal ñëpp xam nañu ci defar si yaatal toujours Thiès sax buy bëre da ngay gis mu dem dañ ko présenté dañ koy bàyyi ba nuyoo Sénégal gépp xam ne ki ñu invité mooy kan le grand champion Safi doomu nday Cheikh Ndeye Safi maa ngi lay nuyu. waaw kilifa gu mag maa ngi nuyu baax baax baax di la siyaar di nuyu Aladji Malick TV yëpp di nuyu ci diaspora bi dans le monde entier di bu sell bi ñu dëkk muy waa Medina Fall gi xam ne lépp fi leen lépp fi leen ko doore fi leen juddoo fekk fi baax ba baax fekkuñu fi sant yàlla bu baax baax baax nag di wax gars yi ñu abonné partagé amee like lépp waaw parce que ñun tamit lii leen am Aladji Malick TV moom lañ am ñun ñoo ko moom ñoo ko sos kon nit ñëpp jàpp waaw donc daa bokk sot nit nañ bañ a complexé nañ ci jàpp autorité jàpp ci sponsor yi ñuy jaay ndox ñuy jaay radi ñiy jaay gerte xeebuñu kenn kenn ku nekk la nga am dikkal jàpp ci télé bi mu jëm ca kanam. saafi bu ñëwee tey. Hmm. ci saafi. Hmm. kañ la dugg ci làmba kan mooy saafi ak saafi kan la gën a bëri. waaw dañ may laaj bu bëree bëri. bu bëree hmm. woon nga bëgg xam saafi démb. démb saafi. waaw loolu moom xajul ci émission bi. waaw waaw dañ ci ñëwal waaw mais xanaa def ko ay xama waaw remisé waaw euh, saa daanaka euh, teel naa dugg ci làmb maanaam teel dugg ci làmb maanaam soo ko déggee ñun bëri leen foowee ndax mbét na faal képp ku fi nekk juddoo fi nekk xale. Euh, dans les temps di nga fréquenté suñu suñu kër bàyyi ñeneen jar yàlla na ko yàlla yërëm di nga dem laan arène laan jàmme surtout bu la bëree neexee di nga dem fréquenté ko Omar Diko léegi nag ñun da naan jaabante ci ñett yooyu bu ñu demee àll la lañ jàmmee bu jeexee bu ñu xëy suba dem ko ëmadi suba gi ngoon gi yëpp mbëri fi nekkoon dans temps ñoom ñëpp kër ëmadi lañu nekk ñun di xam di jàpp jàpp sëru maire bi maire xadinaar ma koy nuyu au passage yaay ëppar di ko di sàcc ay sëram dem àll ba di contact affaire yooyu di xam ma ba virus bi dugg nu noonu daal moo loolu dooree quoi suñu carrière sa combat mhm. waaw boobu xam nga euh, àdduna boo ci nekkee mënu tëb tëb tëb di jàngi école jékki-jékki dem université faaw nga def école primaire am na xam te dañuy jaar ci garderie d'enfant ñuy jaar ci pépinière yi xam nga dès le ba âge ñu teel a jàng bëre nag macha allah teel jàng bëre moo tax moom sax dugg mbapat mbapat day neex parce que dañuy bëre 30 combats benn guddi te duñ doyal même bu la daanee sax boo bëggee dañ lay mettre revanche bëriwaat ak yow mais boobu jamono làmb neexoon na quoi waaw boobu jamono ndax ki ñi nga bëreel xamoo leen da nga ñëw si meeku bàkku teg ndënd kenn ñëw fel nga bëre ak moom mën ngeen mën ngeen di bëri sax 30 minutes kenn daan kenn du tas ko ba suba ba suba ba ngeen dikkee ngeen bëriwaat. man dama dama dama seetlu. Mhm. ca combat yi passé. Mhm. yaa ngi waa kër mhm. nga dem Thiès. stade bi yëpp. bu yóbbu booy bu bu taalee loxoom rek stade bi yóbbu. yow kese. loolu boobu nga ak xam-xam boobu nga ak ba ñëw bëree taal. loolu lan lan nga ci jàngat lan la ci xale yi war a jàngatee ci yow. waaw mais loolu àdduna moom ak foo mën a nekk amal mental de fer kenn bañ la déstabiliser wala muy yàq sa conscience tey nit sax dina nekk ci kër yow suba fekk kafe gi jeex mais war na mën a gëm ne bu génnee dem kafe wala bu toog ci kër gi kafe dina ko fekk loolu gëm-gëm la man nag ki mën a bëri c'était l'ennemi du peuple pour le peuple parce que Pathé euh, dafa nekkoon ci ay loxo génn juste combat Modou Lo ak Ama Baldé des presque 15 jours mu dikk ni man victoire bi lay jël def ci communication bu am solo man man ba may dem mentalement xam naa ne ñëpp moom lañu faral. ndax man dama la ma Cees waa la. Mhm. bu ñu ko nëbbu Cees bu dee bëri ak. lu mën a mel. Mhm. faaw suñu xol mhm. sa xam saafi. ma la wax rek ñun fii lañ dëkk Cees lañ dëkk particulièrement Medina Fall euh, nekk ak ñoo xam ne ñoo ñu jàngal bëre yar ñu. def si ñun lu bare bare bari man bi may dem xam naa ne ñi ma àndal sax am na ñoo xam ne Pathé Baldé lañ faral. waaw faral ma mais duñ ko faral ngir yërëm ko ndax dañ doon bañ bu ci jëlee leneen nekk ca la mu nekkoon te loolu kenn ko yàlla moo taxoon ñu faral ko. ñu tamit jaay combat bi def ci communication def ci xam nga jaay combat bi mais man naa ne arbitre sax Pathé lañ faral. te xam naa ne moo ñu a taxale maag Pathé Baldé daan wala buddi bàcc si sama xaaj kenn ah yow kenn day yow. <laughs> Mhm. Mhm. Mhm. lan la lan la saa saa di xaar pour deuxième sortie man nag soo bëggee dëgg-dëgg euh, su ma sañoon xam nga lu yàlla dogal su ma sañoon Dakar lay bëriwaat pare soo ko bëriwaat Thiès. Ah, promoteurs yi ñu ngi lay contacter pour Thiès wala Dakar ñu ngi lay contacter. non nag ñu may contacter. si lii fañe pass doon doon wax mais ñu euh, ngi ci daal ndax man fa laa bokk si jaxate production falaa laa bokk waaw mais nag man su ma soñoon bëri Dakar. bëri Dakar bi dafay gis sa waaw non xam nga te ji koo tudd rek rek da nga koy may promo. waaw wala mu yaakaar da nga ko préparé. te boo gisee tamit man la bëri Dakar mm-hmm. xam nga Thiès lamb Dakar ak lamb Thiès benn la mais amateur Dakar ak amateur Thiès duñ benn Dakar amateur yi ñooy taxawal combat yi Thiès promoteur bi mooy taxul combat waaw man damaa dama dem Dakar mhm. mhm. sa mhm. la euh, yaa ngi naan bu sama doon wax Doudou Sané pour pour le pour bi. Ah, loolu loolu loolu loolu laa ah foofu nga ne yow. si si saafi saafi yëpp yàgg Doudou Sané. a demal nga demal jaar mais xam nga ñu xam saafi bu ne Doudou Sané ñooñu loolu du leen jaaxal. waaw mais xëy na peut-être dama dugg Dakar am ci ku ma dal moo tax ñu bari di def laam-laam yooyu. mais yàlla xam minute xam na ni su ma jëloon avance Doudou Sané tey tey tey tey tey tey du ma teree dem daayira ngoon daayira dimanche loolu nag bon mi ngi mel ni Tivaouane ak Ndiassane tali bee leen séparé weeru defin Tivaouane waa Ndiassane lu gisuñu ko comme neex mën nga gëm la neex mais man am naa gëm-gëm bi euh, te ñi ma xam-xam nan ni euh, baar bu génn suñu diggante macha allah li métti ci moom lay jógee. dama waxtaan ak benn benn ku xam la. Mhm. mu ne Babacar ma ne ko ma saaf. Mhm. ku baax mental la macha allah. mooy mhm. mooy mhm. mhm. ma la rek si àdduna lépp looy def même booy jaay mbége di ko dawal gëmal ni ëllëg na sa xel nekk ki yor T-Max wala 4x4 boo xam tey jii moom la gars yi naan may bàgg doo ko wax nag ndax Sénégal ku ñu ni xam fa nga dem doo àgg xeex bi day bari fakkasali day bari mooy loolu mais yow amal gëm-gëm bi rek yàlla nag mooy dogal. man nag ponkal bi toll ne yàlla su ma ko ñaan du ma ko ñaan lu faj sama aajo dama ko ñaan lu faj aajo jàmm ñëpp gannaaw nee na li mu yor pour doomu aadama te duyu ko dara amul jabar amul doom amul kenn te li neen li mu yor buñ ko ñaanee may ni buñ ko may ñu mere na ko ñaan du ma ko ñaan lu tuuti saa fi ñu mhm. mooy combat dimanche Balla Gaye 2 en tant que grand champion comme mhm. tey nan la war a doxalee balaa ngay waaw boobu dafa nekk combat boo xam ni Eh, ñoom ñaar kenn ku ki nekk da ngaa yor sa ëmb te kenn xamul loo indaale ndax Balla Gaye ci gàddaay gi bi mu dikkee eh, ñaari combat la fi am muy Modou Xarañ Lo ak Gris Bordeaux Bombardier da koo daan trois benn ngoon arbitre lànk ba tey joxul victoire beneen bi bi mu dikkaatee Gris la bëril bëri ak ki nga xam te ji moom mooy booy Niang gis nga li ci demee mu dem INSEP dem travail ñëw. gis nañ shooting bi macha allah gis nañ ay loxo yu am sirit gis nañ ay bras macha allah il a bien travaillé mais xoolagul biir bi parce que su mu googul Tapha Tine depuis euh, ci côté boobu 2009 la gëgee daanu hmm. hmm. ko jël këram indi hmm. la war a bëri Tapha Tine. waaw mais li ma la wax su mu googul mënu koo teg mënu koo teg dara parce que Tapha lu gàtt gàtt depuis 2009 tegal na fi lu toll 12 victoire wala 8 victoire yoo xam ne kenn daanu ko. dafa teg Balla Gaye 2 mu ni ko ñemewoo. waa am na ki droit jaay leen combat bi parce que li leen tegal la ñoom ñaar couronne empereur leen tegal kon faaw la jaay combat bi mais ponk bi toll tafatin nga taxaw moom naa ko ñemewu ma ba pare tafatin dafa am lu Balla Gaye def ci xel sénégalais yi mm. sénégalais yëpp ñu bari dan ni tafatin ñemul Balla Gaye tafatin am ay mbokk ami xarit ami soppi am moom di muy dégg communication bi mm. xam ne kon tey ji combat bi moom bu arrêté benn mét ñëpp moom parce que mental la ñu bari dañoo dem ni Balla Gaye dafa jàpp tafatin ñemewu ko kon ñi ngi xaar Balla boo xam ne arbitre naan fut mu dox ci kaw Tapha waaw moom loolu la jàpp dafa jàpp ne dafaa ñemewu ko da koy négligé Balla Gaye boo xoolee addunaam jëpp ñaari mbër la naw la wul ci adduna muy Modou Lo ak Tapha Tine di leen wax bu neex di leen wax wax bu sedd di leen raay seen digg ginnaaw waaw moom loolu la jàpp loolu la gëm hmm. mais Tapha Tine da ko ni hmm. yow ngi la sëq sànni leen man maa leen jàpp duma leen daan man abandonné Balla Gaye ni ko ñee yàlla daan mais yow maal daan ba pare dafa am benn mot boo xam tey ji bawol bawol dañ ko téel Tapha Tine dafa dañ ko téel Balla Gaye téye bi mooy bul fàttee ni Balla Gaye moo taxoon ni Tapha Tine yow kaw kaw nga seen premier jàkkaarloo ñoom ñaar moo indi woon Tapha Tine moo tax Tapha Tine koroog bi mu jàkkaarloo Balla Gaye seen premier jàkkaarloo mu dugal Balla Gaye ci combat bi dem ba pare génnaat ci combat bi dugal gi mooy dafa dëkk taxaw sol lim sol yuuxu ko ni ko ragal nga faalewu ma la Balla bi mu piquant deuxième tàkkaarloo Balla dugg ci combat bi Tapha Tine ci combat bi bàyyi Balla communication bi xamuñu nag ba xam bu làmb jaar ci biir làmb gi ba Tapha Tine di dugal Balla gi ci combat bi wala day bàyyi Balla gi ak combat bi. ba tey tam hmm. hmm. hmm. Balla Gaye. fan la fan la mën a yóbbu làmb. ak fan la mën a eggala non làmb moom ba ba Tapha Tine juddoogul ba tey làmb ngi am ba Balla Gaye juddoogul ba tey làmb ngi am ñoom ñaar avant ñu juddu mbër bëri na million ñoom ñaar avant ñu juddu mbër bëri na esaat ñoom ñaar avant ñu am judd ñoom ñaar roi des arènes am na kon ñoom ñaar amuñu leen lu yokk làmb làmb wërsëgu suñu borom mooy xool fu ko neex mu tag fa làmb du da ngay prouvé sax pour mën a bëri roi des arènes roi mooy def choix xool ko neex mu bëri moom ñëw ci làmb Thiès. Mhm. nga war ci waxtaan tuuti. Mhm. benn xale yi. Mhm. waaye Modou Lo Siteu. nekk combat bu neex euh, di féliciter Modou ci honneur bi mu am ak grandeur ba bëri Siteu. mais tamit di encourager Siteu tamit di ko féliciter encore mm. ci jom ji mu am ba affronter de des arènes dafa am ñaar kii dafa am courage jël ko tàll ko loxo kii tamit dañ koy encourager. daa daa daa liggéey tax ñëw. non même buru loolu même même buru liggéey bi dafa am loo xam chance lay doon parce que mbëri fi nekk bari na yu noo xaar Modou Lo ak diw Modou Lo ak diw Modou Lo ak diw kon Modou Lo bu joxee si ta loxo loolu tamit il faut tamit sénégalais yi génn ñu reconnaissant quoi taxaw ci par jox Modou Lo benn cër bi grandeur nangul ko grandeur am mooy Modou fi mu toll ko làmb dox si ne ko kaa ñu bëri mais Modou waxoon na départ ni leen maa ngi neen yàlla su ma nekkee roi xale yi lay bëri du bari bëri mag ñi kon la ma def na ko beneen bi mooy ñun ñuy xam ni ak keneen ak keneen muy man ak sa morom war a góorgóorlu xool ko Siteu xam ne nit ki war nga defar sa communication ba soo waxee ñëpp bëgg la war nga boo jógee war nga mën tamit xool ni ngay doxee ak ni nga waxee ba bu on tamit kon ñu xool ko Siteu bu baax parce que Siteu jàmm gën li muy réy réy réy dugul kër ne wane leen ko di ko waxee di kon ñun tamit dañ xool ci loolu quoi mm-hmm. Thiès. Mhm. Mhm. Mhm. ce que jaaduñu ñu taxaw taxaw seen. waxtaan ak. bokkaat ndey pour ñuy loolu tamit pour mu am jafewul mais tamit il faut ñu defaraat suñu toogaay ñi nga xam ni tey jii parce que làmb ñaara ko yàq kii wax ki làmb te warul wax. da yàq làmb te bari na ci ñoo xam ni ñu ngi yor micro yàq làmb parce que xamuñ ci làmb saa bu ñu waxee loxo dem gëm te na ko tibb am ñoo xam dañoo nekk ci làmb noppi te waruñu noppi il faut ñu wax te tey ji làmb li tax mu yéeme mooy euh, boo xoolee exemple ma jox la exemple combat Modou Lo Ama Baldé ki duggoon ci biir géew ñëpp gis nañ ko xëy na émotion moo ko dugal ci loolu mais biñ koy dóor di ko génne la moo tax caméra yi chaque jour di ko teg rafetul ci làmb bërki démb final Real Madrid bi am na ko dugg ci stade bi yor téléphone am di sinap mais caméra bi danoo dagg danoo dagg match bi jël caméra bi wan ko waa tribune bi parce que ñoom duñu wane lu ñaaw mosoo gis match am Europe tubaab bi xeex nga gis caméra bi ko leneen lay wane ñun làmb nga gis ko xam te ne day dugg ke làmb tarxi sax ñu bëgg koo wane. waaw pour la. rafetul non kon nañu wax lu rafet def lu rafet te yéenante jàmm yàlla noppi na. léegi le président Diomaye Diakhar Faye ku loo xam ne mooy doon mooy doon président ngeen di réer kaso la jógee dem ñibbi dem ñibbi pale. waaw 3 mois 1 an ci ginnaaw mi ngi woon ci président bi. ñëw. ñëw pale bi kon yàlla noppi na kañaan fankul mur yàlla rek mooy maye séeréer bi ni faj na ngóor saaro roogo dem na xoolub am fañu fay fay fay ca wàccaaca fañu fañu fay fay fay ca wàccaaca xabalu bi teg. wax jël ma ko yaa sama. maa ngi yow tool maanaam yàlla naa taw te yàlla ba am taw mënut ne. mu tutul ay tool fu ma tooyee di taw foo foo ma ma lóoree waaw mi ngi noonu loolu loolu tax sëriñ bi ni faj na ngóor saaroo roogo dem na xolub am fa ñu fay fay fay ca wàccaacaa fa ñu fa ñu fay fay fay ca wàccaacaa ñun nag leen moon tardel bëgg yë bëgg yefal màgget bëgg ko def champion wala ñu jël tey ji bañ a nangu lu yàlla dogal ci doomu adama il faut ñu nangu te gi bari na milliardaires yoo xam ne boo demee sa kër mënu ñëbbil seen tur bari na xam ñu ngi fii ci àll Kajoor wala àll Bawol bi yoroon ay milliards te seen nekk amul kilomètre ko parce que xam di xaar ki maanaam ko xamul ba xam da nga yónni wala da nga fanaanam déet nit wax ci nit wax ci jàmm am ñoo xam ne Babacar li lay waxal boo ko déggee suur leen te buñ la rombee da leen nuyu ñu dugal comme si mbiru mais a a nga loo xam te ku ko dégg xeeb ko après moom ban sens parfois nga ne diw moo def lii mais ki ngay wax loolu ni moo tax moo def lii wala moo def lii kooku après boo toogee nga xalaat nii kat balaa ngaa ne Babacar moo def lii mais lu ñaaw nga naan moo ko def Babacar su defee loolu ba pare ban intérêt la ciy ban intérêt la am ñun Sénégal yàqante moo bari ci réew mi. waaw léegi nag kon yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqule. ñu ngi may wax ne temps bi jeex mhm. waaye une minute mhm. nga waxal ma ci réseau de Thiès. Mhm. waa Thiès reporter rek. mbërëb. la ñuy def ak lu ëmb lu ëmb lam Thiès ba bokk ndey bokk baay. ban message ngeen bi jiitu mooy yenn reporter yi. nañ bàyyi favoriser. dëgg na dëgg. parce que favoriser kenn. bàyyi ngi ci des day indi soxorub doomu soxna. maanaam da nga ànd nit di ko ree mais doo bëgg mu avancé. parce que parce que tëkkalee koy indi. buñ ko tëkkalee. kenn ku ki nekk am nga sa yoon boo mën a xàll ba dem sa yoon te doo bëri ma sàmba wala nga bëri ma dem ba. nan nu bàyyi ñu bokk ndey bokk bàyyi. ten bàyyi ni diw mooy borom dëkk bi dëkk bi kenn moomu ko. fi ñu rem na fi amul ko demagul Dakar def li mu doon def. mbër lekk fi kase bi mu doon lekk ci làmb te moo doon fi mu toll. kon yenn reporter yi xam nan li may waxal te xam nan li may wax nan bàyyi favoriser ak tëkkale nan yemale ñëpp au même pied d'égalité ëllëg ëllëgu yàlla la heure bi ku la waxoon ni ku la waxoon ni Pambay moo génn da nga naan déedéet daaw ak daaw jéeg booy jaxaw moo génnoon daawaati jéeg laay gote moo génnoon hmm? barki de moo njaay ci bu duggeen Dakar saaf la ñuy wax kenn mënu ko dara te pourtant man fàtte woon nan ma doguma la nga jékki-jékki dégg Cheikh Niang te ñun ñooy ancien gloire fii ci dëkk bi ñun boog lan ñun boog lan ko sa dara bu diggee Dakar gaa dugg Dakar balaa ngi tudd benn boo ñun la ngi tudd waaw dafa Thiès teg na fi ay temps yoo xam te ñu naan ñoom tamit ñoom ñooy euh, ancien mbokk yi nag nan bàyyi parfois sama am na nga xam maa ngi bokk groupe WhatsApp mais dañuy jël kenn maanaam après da nga mujj rus xam tax nga rus kooku ni jël di ko teg wala ñu koy dox yenn nii ñoom euh, ñu koy gasal loo xam tey jii loolu arrangé wu ko. arrangé xam la tax arrangé ko di ko jural leneen. dañ bàyyi tey jii amul benn reporter gi boo bokkal groupe mu jël image booy jaxaw dugal ko te pourtant ngi dox naan booy jaxaw mooy champion mooy borom dëkk bi booy jaxaw macha allah ma ko nuyu au mu indi bu ne Ousmane Gandigal bi mu jaaxalee man mi mu maal ma leen ma keneen keneen mu daan leen booy jaxaw moo ko daan. dinaa ko dinaa ko li ma dimanche bi ñëw ñëw voilà kon buñ fàtte. fàtte xaju fi ndam lu ne booy jaxaw indi na ko Thiès mais doo gis sax groupe ku tudd ba tudd ko kon dañuy rafetal dafa am solo ndax làmb moo am moment yoo xam ne ay fam ay moment de ay moment de joie am ay moment de folie période ngay toll di jóg di bëri di daan ci kaw mais leen période boo xam ne dangay ngay wàcc parce que ñi ngay bëril ñooñu mënu leen a daan mais sa sa sa jom moo la fa yóbbu sa daanu gi lay daan bi sa ñàkk jom parce que ñooñu mënu leen a daan mais kon nañuy wax du rafet yemale ñëpp wasalaam jërëjëf looy tàggu xanaa di xam ni li duuf ci cin li li <laughs> xajul cin li waaw mais ëllëg yaatu na te ëllëg ëllëg yàlla dañu programme waat ko waaj ko waaw su boobaa nag du nekk émission bi ci biir salle bi dañuy génn dem ville wala de France waaw wala ci kamb yi wala sax mais en xam leen ni li may waxoon laay waxaat rek la déposition pédagogique nan ci jàpp na bañ a complexé ñun Aladji Malick TV la nam muy télé gox bi télé askan bi nañ ci jàpp partage aimé like ndax tey jii lii war a a dem ba dépassé TFM gëm-gëm laa Youssou Ndour bi muy bi muy euh, bi muy bi muy jógee Bawol di ñëw Sénégal di ñëw fii réew taax mosu ñaar fukk la fi indi te gi samp na TFM Sénégal nag dana gis président 2 a daw ak mën a daw kenn du moom te bu fi boo fi nekk il faut nga am bu baax ndax saa boo jógee fukk ñoo jóg pour taxaw pour galgal la mais amal mental ne yàlla mi may Birane Ndour ba mu nekk DG di doom di doomu Youssou Ndour te daa ko te jàng TFM daa ko faa jàng mais ko àdduna lu ci ma ko conseil ñëpp àdduna gëm-gëm moo fi nekk ñu ñi ko leen topp ko découragé loola ay ki nga dal waa gi sa waa gi nangam sàng ma dal ci rax yi non non non fii kenn xëylu xëy étage am nga foo jaar di ñaanal caméraman yi technicien yëpp di ñaanal borom télé bi yàlla def ko jàmm fi suñuy kilifa ñun te yàggal nu fi may ñu wërsëg bu mën a jox kilifa yi waaw taalibe kat balaa neex a bëgg noonu ñu dalaloon la grand champion di ko di ko jéggalu te di ko sant bu baax a baax ndax xam na mun na am na yéen nit mun ma dinaa ñëw bu doon dix mille ma def ko. gars yi ñu ngi ñu ngi jaaree bu baax a baax sama benn xarit Bato Camara ma nga états li ma sol tey ba ma ko yónnee muy sama bu baax a baax di ko ñaanal jàmm. gars li saa wax rek ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. reporter Baba keneen ñëpp ñoo yem kenn dama ko teefam ñëpp teef yam kon nañ bokk ndey bokk baay pour lan bu ëllëgee na ñamal ñëpp murit ñëpp ñu bokk ndey baay vraiment saa fekk Cheikh ñamal laay gotteeg boo jaxaw ñëpp benn laay ku ci ne di leen woo di leen def ñu waxtaan a ñoom booy taxaw dinaa ñëw insha allah man dinaa ko invité mu ñëw ñu toog waxtaan ñu ko ci li mu ne. champion yow yow ko mu jóge fi lii ndaanaan nga ñee daan ay ndaanaan lañu. Hmm. asalaamaaleykum gars yi ba dimanche incha allah.